mbokk ma delloo di leen nuyoo di leen nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam ni ma koy defee rek bépp jamono bu ma commencé waxtu mel nii wax wax waxtaan yu mel nii damay tàmbale ñaan sunu borom bi defal nu jàmm yàlla na nu defal jàmm nu ñëpp yàlla defal jàmm réew mi li ñuy ragal ci fukki weer ak ñaar wala ñett yi dox sunu diggante ak vingt cinq février deux mille nga xam ni ca la ñuy tàmbalee tànn ci nu war a jiite ca booba bii li nu fi ragal yàlla bu diggante bi li nu fi ragal yàlla bu nan fa àgg ci ak jàmm mbooloo mi dem wote ci jàmm kenn ku nekku dal sa xel nga sànnil ko sa nga jox ko sa sa baat sa kóolute te kookee buñ ko joxee réew mi yàlla na ko teg ci jàmm yàlla na ko teg ci jàmm yàlla na ko teg jàmm teg ko ci yoon yàlla na ko teg ci jàmm teg ko ci yoon bu boobaa yaakaar jañu yam ci moom ba di ko jox suñuy kàddu yàlla bu nga ko tas yàlla bu nga ko tas yàlla bu nga ko tas kookee na yàlla na doon que nit ñi gën a yaakaar ne moo gën a jub fuuf fuuf kii fi nekk tey ak këm fi wóotu woon yàlla nañu ko sunu borom bi defal képp koo xam nag diggante bi yaa ngi fi fexeel faagaagal sa sa sa sam nawle ngir rekk mu bañ a bokk yàlla na yàlla nasaxal yooyu ngay def te wëlbatiku xapp la ko loolu yi nag jamono yi xam ngeen ni am am na fii ay xew-xew Mbakke Yewwi Askan Wi bëggoon nañ faa def ab daje meeting bu mag préfet ba fa nekk tere ko moo indi ay jafe-jafe yoo xam ni neexul kenn man de wax dëgg yàlla jafe-jafe bugguma ko mu indi jafe-jafe yoo xam ne neexul kenn man jafe-jafe bugguma ko jàmm rek la bëgg jàmm rek la bëgg ah leen di jafe-jafe yi ñëpp xam nañ ko préfet ba tere gam ko tere te mënoon na koo bañ a tere waaye nag ñoom ci ndigal la ñuy ci ndigal la bi man amoon na fi benn rapportu ñoom ñooñu di nekk préfet ak gouverneur ak nangam administrateur civil benn ndaje muñ defoon yàlla def ma daj jot ca rapport ba am na fu ñuy waxee ne ñoom mënuñoo bañ a farak ngóor ñoo ko wax de ñoo ko bind ñii nuy fal mënunoo bañ a farak ñoom même buñ ko mënta fésal ca sama mbind moomee dama ne leen waaw yéen booba yàgg na mbaa ñu mel nii duñ mel ni yéen mbaa diggante bi soppiku ngeen fii waaye yi dox ba wane ne na soppi ko mu fi damaa defe ne sax ñii dañoo gën a euh, ànd ak nguur gi te nëbbatuñu ko préfet mbakke bi mënoon naa bàyyi waa yëfteef ma waa yeewee ñu daje waaye lañ ca doon ragal dong mooy mbooloo ma amoon keroog Kër Masaar amaat Mbàkke te wóor na ni mbooloo ma naroon na am kër Mbàkke moo ëpp fuuf ma amoon eh, Kër Masaar te bu nu bëggee jàmm bu nu bëggee jàmm bu waa Bennoo Bokk Yaakaar bëggee meeting ñu bàyyi leen bu waa Yewwi Askan Wi bëggee meeting ñu bàyyi leen bu keneen bëggee meeting ñu bàyyi leen ba bu ñu àggee ci loo xam ne nag meeting munta am te ñu mën a joxe firnde yi tax meeting munta am bu booba booba mën nañu ne meeting du am waaye Benno Bokk Yaakaar ña nga fu ne fu leen neex meeting kenn du leen wax dara meeting bu Mbàkke boo bu doon Benno Bokk Yaakaar wallahi mën nañoo bañ a sax demander autorisation euh, déclaration di xaar euh, préfet nangu wala déet parce que bu boobaa xelum préfet sax du xalaat Benno Bokk Yaakaar di meeting Mbàkke mu tere ko du ko xalaat bu nu bëggee jàmm li ma leen di wax mbooloo mi lépp boo xam ne terewuñ ko nit ñi dañ fay daje waxtaan seen waxtaan

jàmm ne ñooy ñi war a wax wax ba mu jeex gone yi place ba la fa nekkoon lépp ñu ma dañ ko nettoyé nettoyé ba bant sax doo ko doo ko fa gis ku ne ñibbi sa kër muy jàmm ñu ne ñooy ñu tegaat cay fan yéeyu bëgg a defaat beneen daj ñu ne ko mukk doo ko fi defee parce bugguñu mbooloo moom dajawaat fa yeewi ji seen bopp ne lu tax sunu kee ngeen di tere nun dañuy organiser jis ngeen la ca xew ji ngeen la ca xew waaw donc meeting bu ñu ko terewul jàmm rekk kay am dama ne meeting bu ñu ko terewul jàmm rekk kay am te quand nañu bàyyi Bennoo Bokk Yaakaar fu mu bëgg meeting meeting fa yeeyu askan wi fu mu bëgg meeting ñu indil ko jafe-jafe loolu feeg bàyyiwuñu ko. Euh, jàmm dana jafe ci réew mi. donc affaire Mbàkke boobu am na Jurbel aussi am na ay waa Pastef yoo xam ni dañuy wër di dajeeg militants yi di dajeeg nit ñi di leen jox ay documents yi kay di leen wan ne euh, noo ngi jëm ci. binduwaat ci liste électorale yi di leen eh, leeral nit ñi ñi binduwul ñoomul carte d'identité et cetera nañu ci jublu wan leen yoon wi niñ koy defee et cetera ca loola lañ leen jàppe jàppe ca xaw ñu bëree bari yóbbu leen kii leen tëj leen juróom benn weer ak juróom benn weer ak ak ak àllamaan ñaar fukki junni kenn ku ne wallahi bu doon waa bennoo boo yaakaar ñooy wër di def loolee ñuy def kenn du leen tudd kenn du leen tudd loolu nag feeg jóge gu fi ah jàmm dana fi jafe te ñi nga xam ni ñuy ah, nañ doon ay politiciens nañu doon société civile nañu doon chef religieux ku ñu mën a doon ci Sénégal ñépp a ngi naqarlu Sénégal nii mu mel jafe-jafe yii moom fitna li ñuy tuddee fitna ji Sénégal nekke te boo déggee nit ñi wax fitna ji dañ naan rek opposition waxuma opposition sax waaye Ousmane Sonko moom rek moo fi indi fitna dama ni ñetteyam nit dadul xam dara ci li xew Sénégal loolu boo ko mën na ko dégg nit ku xamul dara nga ne ko fitna jëpp ci uba Ousmane Sonko ñooñam la jóge moom mën na koo dégg nit ku xam te yoonam nekkul ci dara parce que am na ku xam te yoonam nekkul ci dara bari na Sénégal kooku it peut-être mën na koo dégg waaye ku xam te lii xew ci réew mi xaw laa nga teg ci sa bët mu neex la wala mu naqari la boo nee fit na jëpp mi ngi jóge ci Ousmane Sonko ñi màndal dafa xaw a mel ni ak naa naafeq am na ci ak koo mën a doon man li ma ñi ma jàpp li ma jàpp te lii awuma sañ-sañu nag euh, ne kilifa yi diine yi lay wax parce que tollu ma foofa waaye bu ma sañoon danaa toll fu ma mën a waxeek ñoom man li may wax mooy li ma gëm man na maa jóom nag bari naa ci moroom gis ngeen li xew fii nu ne ak li ko jiitu jafe-jafe yu nekk yépp ba Macky Sall ñëwee ba tey te musuñu ko nekk ak benn président de la république jafe-jafe yi nekk ak makki Sall ji nga Macky Sall la mu waxante woon ak nun la mu waxante woon ak nun bu ko defoon wallahi na nga ngi ci jàmm affaire xalifa Sall du am affaire Sonko du am affaire keneen du am ngir lam waxante woon ak nun doxalin rafet ba mu nu diggoon kàddoo bi yam nu joxoon bu ñëwoon tàmbali loole mu wax mu de mu di ko def ba fii nu toll nii affaire Khalifa sal doom affaire Sonko doom affaire keneen doom du ay duñ fi nekk di jàppi gone ay fukki fukki fukki gone yoo xam ne genn wet lañ féete billaahi walaahi taala ki Sall la mu waxantoon ak nun doxalin wam mu digoon bu ñëwoon def ko ba fii nu ne Sénégal ngi ni jàmm ju nu ñooy parce que bu ko defoon 2019 dañ koy fal fal bu rafet rafeta rafet a rafet parce que booba doxin wa day rafet. nam nu ko waxee bu ko defoon amul benn werante 2019 peut-être Ousmane Sonko sax kenn du ko xam. dama ni doxalin wa mu waxoon ak na mu rafet na mu taaroo. kàddu yam nu joxoon bu ñëwoon 2 mille 2012 tàmbali ko di ko def di ko def ba nag si fii fitna ji nu nekkee dañ ko dañ koy dégg am affaire xalifa du am Ousmane Sonko sax mën nañ ko bañ a xam yàlla xam na ko te mille 2019 dañ ko doon falaat ci falaat bu rafet rafet boomul benn coow bu boobaa ñaaw ñaaw ñaaw téef yi nga xam ne moo indi Ousmane Sonko créé parti di wax li muy wax tam naqaree leen ba ñuy def li ñuy def bu dox defoon doxalin bu rafet dama ne doxalin ba ni mu rafete ci dégg ak nam nu ko waxe bu ko defoon Ousmane Sonko mënees na ko bañ a xam kenn du xam def affaire xalifa Sall amul benn werante fit na jiinu ne duñ ko nekke mukk lu njiin jaagate mooy njaag la mu waxoon lépp ci lu rafet mu teg ko fële def safaan ba bu digge woon téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent defu ko safaan ba la def loolu rek ay sunu cat lool rek ay sunu cat ni président de la république boo xam ne bii yow ña ngay booy dem ci élection ña ngay jàkkaarloo yaa leen di tànn mais kooku kenn mësu koo gis fi mu ne fukki weer ak ñaar moo dox ci diggante deux mille vingt quatre février deux mille vingt quatre ak léegi kenn xamagul fi mu ne kuy nekk candidat xamuñu dana nekk mag xalifa euh, xamuñu dana nekk Ousmane Sonko xamuñu dana nekk ba Boubacar xamuñu dana nekk euh, keneen ak keneen parce que parrainage baa ngi fi. boo xam ne moo ko dugal ci code électoral. kenn xamul du mali Gakou. du du du ku ngeen ya du docteur Abdourahmane kenn xamagul kuy nekk candidat loolu fii rek fii rek la xew ak président boo xam ni ñay nekk candidat jàkkaarloog yow yow yaa fexe yaa leen di tànn kooku Sénégal rek la xew donc lu njiit njaaga mooy njaag gannaaw fitna ci mu indi ngir la mu waxoon defu ca dara safaan bala def xam nga boo ñëwee naan euh, man opposition bii ma jàkkaar lool waa ku jégi danaa leen faagaagal ba lootuñu tekki dara je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression danaa leen faagaagal ba duñu tekki dara te kat sañ-sañ ya nga am te constitution ñoom sañ-sañ yooyu la ñoom di say nawle nga ni da leen faagaagal ba duñ tekki dara mais ñooñu mënatuñ la wóolu mënatuñ la wóolu donc leneen li indi lépp la gën a garaaw mooy affaire ndaw sii affaire ndaw sii lu nu dal affaire ndaw sii nu ko ndaw sii ku dul naa xam nga ni ay sos ak i dong la dama ni affaire ndaw sii lu nu dal moo nu moo koy indi te képp koo xam ne ki doom naa féq xam nga ni ay ay fen ay njuuj njaaj dong dong la lu ñépp xam la dama ni officier supérieur gendarmerie ña nekk ci kaw police ña nekk ci kaw magistrat autorité administrative euh, société civile les les autres partis d'opposition ñoom ñëpp xam nañ ne l'affaire boobu ay caaxaani sos la dafa am lu ko wane ñaari at nga jiiñ góor ne def la jàkkaarloog doyen des juges da nga indi ay firnde yu mat sëkk nga jàkkaarloog doyen benn firnde benn firnde ndaw suuf si indiwu ko gen benn seede bu seede lu ndaw si indiwu ko ku xam na ko wax benn firnde indiwu ko amul benn seede bu taxaw ne lii mu wax dëgg la dama te am na loo xam ne bañ ba mu ne hey da koo sàkku ca guddi ga dañoo seeti docteur docteur boobu ngeen xam nañu ko seetee xam ngeen ko xale bi ab kat kaata ko jël si ca foofee muy liggéey am na ñu ne oto Mamour Diallo la wóoruma oto ba jaar ci genn kër kooka xam na docteur ba woo docteur ba ne ko nun kat dañ fee mi jafe-jafe dafa am sunu xale boo xam ne bii dañu ko siif maanaam xaw naa bu sañul nga jaar fi nu nu dem nga seet ko docteur bi nee na ma yaakaar ne lu am la ma jaar fa mu dem ma seet ko li wax ñoom ñépp yéen ñëpp dégg ngeen ko nee na ba ma ko gisee rek dama ne xale bi day niruwuma eh, ñañ daan def lu mel ni lii nga xam ni moo ko fi indi mu seet ko ba mu ko seetee xamul kuy Ousmane ko de booba ba mu ko seetee la mu wax ndaw si aw nangamam ñàkk na ko bu yàgg bëgguma jaar ci tur maanaam sëy naa góor lu yàgg yàgg yàgg te ñaari fan yu mujj yii ñaari guddi yu mujj yii sëyu fee góor dama ne ak nangamam googu ñàkk na ko bu yàgg yàgg naa sëy ak góor te ñetti ñaari guddi yii ci sabab gis li ma gis sëyu fee góor te moom nee na ca guddi ga la ko Ousmane Sonko siif certificat médical bu leer affaire viol affaire viol buñ koy wax tëdd ak jigéen ko certificat médical rek mën na koo régler mais li ci gën a garaaw avocat boobu ñuy wax bañ daatan si foofu woo na docteur bi parce que ab avocat la xamante ne ne ndax da nga fi nekk suba mooy euh, bis bañ koy nar a nar a indil euh, ndaw si pour mu seet ko ko man ngi fi ma fi demu fenn loolu ñëpp xam la lu nga bi ba Diallo mais lu ne def nañ ko pour xam lu nekk ci certificat médical bi ko wax leen man de mënuma leen ko wax gendarmerie ñoo ma réquisitionné ma def ko ñoom laa koy jox ci enveloppe kenn du ñoom laa koy jox li ci nekk duma ko wax kenn def nañ lu ne pour mu wax pour mu wax ba ñu xamee la ca nekk lii kat moo ko wax docteur Mamour Diallo ak maître Sow moomu Gabi Sow la xaw ma ñoo koy topp pour mu soppi la nekk ci certificat di médical ba parce que xam nañ ne la nekk ci médical ba arrangé wu leen. moo ko wax de gynécologue bi nee na dem na ba ñu koy jéem a ger yónni xale bu jigéen mu yor sac ab ab cartable ab sac bu xaalis bu bari ne ba mu ñëwee ba ma ko wax ne ko génnal sama bureau moo ko wax de ñëpp dégg ci ay rajo yi télé ñëpp mu génn ab secrétaire am dellu si ne ko ah docteur xanaa seetu li nekk ci kii bi xaalis bu bari mu ne eh na dem donc ñooñu dem nañ ba koy ger pour mu soppi la nekk ci certificat médical ba lu ñëpp dégg la loolu. waaw lu ci yoonu Mamour Diallo lu ci yoonu euh, maître Sow moomu nga xam ni nee nañ gorob Mamour Diallo la lu ci seen yoon te euh, euh, avocat boobu sant Sow bi nga xam ne mbir moomu am na ordre des avocats ba ñu ko bindee nee nañ ba muy tontu nee na leen dalal na xale bi fukki fan ak juróom affaire bi soog a ñëw. fentuma dara de donc après xale bi donc dem ci gendarmerie ñu koy déglu. brigade de recherche capitaine Oumar Touré dégg ngeen ko nee na boo yoo xam moom léeg-léeg mu ne bàyyi ma ma ma ma génn dem di wax ak soo su mbay jël si jël si woon ko fa mu doon liggéeyee dellu si ba yàgg nee na mu ni ma waaw capitaine baa li may def moom dara du ma ci fekk mës ngeen a gis loolu baa li may def dara du ma ci fekk. bu loolu wiyee mais audio yaa ngi fi nit ñëpp Mamour Diallo ndaw si. seen waxtaan wu gudd woowee mais kooku ku ko dégg mais da nga da ngay sax ruus waxtaan wa mu am ak Mamour Diallo lu mu jotee ak Mamour Diallo waxtaan wa mu am ak Mamour Diallo ku ko dégg da ngay sax ruus waxtaan wa mu waxtaan ak sëriñam boobu sant ñas ba mu dem ba ni ko wax dëgg yàlla man de Ousmane Sonko musuma séq ak moom dara loolu ñëpp ko dégg ah ba pare ñu may laaj ne waaw naa fexe ba indi ci moom ndox ndox mi génn ci góor maanaam moo wax de mun leen waaye yéen xanaa da ngeen maa tegub caga ndax mu ma doon seen doom da ngeen ma laaj loolu loolu ñëpp ko dégg loolu ñëpp ko dégg boole ci nag ak ñeneen ñu dégg madame taal boobu mu mu mës a liggéeyal wax na leen kuy xale bi bu ma fàtte ne xale bi dafa ne keroog ba muy def déclaration dama ëmb te Ousmane Sonko ma ëmbal keroog ba muy siif boo boobaak léegi ëpp na ñaari at ñu ngi xaar ba mu mu yeewi ko moo ko waxoon ba ak bañ ko laaj mu ne dama doon wax rek keroog ba mu jàkkaarloog doyen des juges doyen des juges dégg dégg dégtal ko ne ko ndax yaa wax lii mu ne maa ko wax xëy waaye dama doon dama doon caaxaan dafa doon caaxaan xaw da leen doon piégé te ba muy waxtaan ak sëriñam boobu sant ñas lim na fa lu mat fukki nit yoo xam ne nee na ñu ma waroon a di sàmm sama sécurité lañu ñoom ñëpp tëdd nañoo man tudd leen benn par benn def leen tudd te kenn ngawu ca waaye loolu ku ma ko waxal man ma amul njaboot ami doom ami soxna ku ma wax lu mel noonu mais man danaa ko leeral dans le porte danaa yow lii nga ma foo ko jëlee waaye kenn ngawut kenn ngawut Ousmane sonk ci boppam mais moom andi nay preuve li mu tuddee preuve yoo xam ne mën na koo setal joxe nay preuve preuve yi am na ca luñ naan euh, enquête internet de la gendarmerie man nag jànguma ko ma lu ca ne waaye nee nañ boo ko jàngeele doo dootoo weddi ne affaire bi ab complot la man na jànguma ko waaw loola lépp am ci ndaw si indiwul benn firnde benn ndaw si indiwul benn seede certificat médical bi nga xam ne moom rek mënoon na fa yem mbir mi mënoon na yem euh, brigade de recherche de la gendarmerie rapport ba ak certificat médical ba rek doy na certificat médical ba la lu ci bari ci la ñuy sukkandiku pour xam nit euh, euh, violé na nit wala violé ko lu leer nañ waaw doyen des juges. certificat médical ba yoonam. Euh, audio euh, Mamour Diallo ak ak ndaw su yoonam. audio sëriñ bi ñas ak ndaw soosu yoonam. yeneen témoignage yëpp yoonam. Euh, rapport interne gendarmerie boobu yoonam. ak ñi mu dégg. dafa waroon a déglu Gabi Sow moomu déglu ko waroon a déglu seneen ndaw soo xam ne du ma ko tudd ab avocat jiiñ nañ ko moo def benn message. bu mu yónnee ne kii jarul a tëj na ngeen ko kii rek def ko euh, kii euh, kii nangam maanaam tënk ko dootu dem fenn waaw dootu dem fenn dootu mën a tukki sax et cetera waaye jarul a tëj bu bés ba buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy atte mu doon atte public bu ko defee ndaw si yekk ko lu ne wax yekk ko lu ne yàq der bi bu ko defee ñi àndoon ak moom ñëpp dañu koy dal di bay loole mu wax am na journaliste bu ko wax bi mooy bañ a tuddam exactement loolu la wax nañu koy kii rek ba bis ba ndaw si taxaw adduna bépp taxaw borom journaux yi borom kii ñépp taxaw mu wax ko yaama nangam yaama nangam ñu yàq der ba bu ko defee ñi dañ ko bàyyi loolu lépp am na ci rek ñu ne daal mooma doyen de gëmm loolu lépp jël décision

yàlla dinoo bindam xel pour nu koy jëriñoo mbir moom fu mu demee ba ñu ne viole man keroog mu ko déggee dama ne bëreet les échos ab journal la am lu ma ci xaw a raw ma jónnee journal ba ñu ni à porter plainte pour viol répété avec arme à feu et menace de mort ñu ne da ko sakku ci lu dul bànneexam ci lu dul coobareem boo xam ni dafa yor ñaari ngànnaay ñaari rew loolu rek lay mën a doon parce que mënul nekk fetal gu gudd ne tëddal boo tëddul ma rey la ba tey nañ ne mën naa am mu tëdd nga tëdd mu def la lam lay def dem waaw boo génnee te foofa du kërug étage wala dara boo génnee salle bi dangay ngay agsi ci ëtt bi ëtt bi borom saloo baa ngi fi jëkkëram ma ngi fi ay doomam a ngi fi ñeneen a ngi fi ñu def la lu mel noonu àgg ci yow te neexu la ak fetal ne la boo waxee maree la nga génn waxoo dara dara mu ñëwaat ñaari yoon tëddal wala ma la ak ñaari ngànnaayam nga tëdd mu génn nga génn waxu kenn dara waxu mbokk waxoo xarit mu ñëw ñetti yoon def la nam la defoon ak i ngànnaayam génn waxoo fii waxoo fee mu ñëwoon ñeenti yoon am na ne sa juróom ñeenti yoon nan fa koo fa yemale ca ñeenti yoon ba ba mu ñëwee keroog mu ngi naan ku koy liggéeyal eh, Ousmane Sonko mooy ko looy doy mooy ko daf ma envoyé message sax ne mu keroog ba mu demee kii dañ ne ko ana message mu ne dama koo effacé ñeenti yoon te ñeenti yoon yooyu moo ko doon def mi ngi doon liggéeyak beneen moroomam. ba ñu paree moo ne ko may ma génnal tuuti génnal mu sàkku ma waaye loolu yoon na maanaa Sénégal yi déglu leen loolu ñeenti yoon ñu lay tëddee te néexu la bu ci nekk day yori ngànnaay ñëw na la tëddal wala ma rey la te boo génnee doo ko wax kenn kenn du ko jis ci yow nii la demee de waa loolu nag xel nanguwu ko xel nanguwu ko li ma ciy mujje mooy waaye nit ñi nag dëgg dëgg lu nit bañ bañ usmaan Sonko na seetlu yanu maanaa Ousmane Sonko mii nga xam ni xam na ne buñ ko jekkoo rey ko xam na ne fu lu ne ña ngi koy def pour faagaagal ko fu ne ña ngi koy def pour di ko jëm a piéger lu ko éliminer rek la Macky Sall la bëgg moom leer na ko nañ la mu njëkk a dàq ko mu def fukki at ak juróom inspecteur des impôts ak lam fa liggéey lépp ak lam fa jëriñ réew mi ak li mu dugal ci milliards ci keesu ngóor gi nga dàq ko ci kasaw kasaw dàq goo xam ni borom wax ju bari jooju du ca génn te bañ Ousmane Sonko boobu moo ne kon président du groupe parlementaire. dàq sans ñu jox la euh, au moins demande d'explication. dàq waaye nañ la def demande explication avertir la wala blâmer la wala nangam xëy suba rek de dàq nañ la. ak bu ma san yàlla def ñu def ko député. bu ma san ñëw di wax ni ñu ko bañee ak niñ ko koy wane. Ousmane sonk xam ni xam boppam. xam ni ñii ndëgg sërax gune ñu ngi koy teg fu mu toll ñu ngi koy surveiller loolu da koo xamoon nga jóg yor sa ñaari lawaru weer ñaari ngànnaay daal dem jubal si salon boobee tëddeeg ndaw si par force benn yoon nga defaat ko ñaari yoon nga defaat ko ñetti yoon nga defaat ko ñeenti yoon waaye yéen Ousmane Sonko loolu xanaa nag man. na na ko yàlla natu ci jigéen waaye lu tax mu jóg rek jëm ci sa loxo boobu ci xale boobee ak di ko def ñeenti yoon xanaa nag Ousmane Sonko daa dof waaye ndakaaru ñaata jigéen fi ne ñaata jigéen a nekk ndakaaru te Ousmane Sonko bu ñaawee it du lool xale la amagul juróom fukki at bu ñaawee it du lool lan nan lay defe xëy rek ak fa mu dëkk fa salon ba ne na ko nit ñi seet jékki-jékki rek dem ak ñaari tëdd tëddal wala ma rey la mu def ko dara fekku ko ca mu ñëwaat ñaari yoon tëddal wala ma la mu def ko dara fekku ca mu ñëwaat ñetti yoon tëddal wala ma rey la dara fekku ko ca ba ñeenti yoon waaye yéen loolu siñ euh, so euh, euh, sama yi loolu yenn maana loolu yenn maana lépp mu ngi jóge ci Mamour Diallo moomu nga xam ni Ousmane Sonko da ko fay ji ñoon quatre-vingt-quatorze milliards juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent mu ne da ko luubal ak ñu mu àndal ci terrain yoo xam ni ay suuf yoo xam ne ay jaambur ko moom ñu def seeni njublan yoo xam ne moom génnu ca Amadou Ba mii génnu ci ñu bare bari génnuñu ca lu ne ñu yegg ko dafa mën a fen surtout kooku ma leen di wax moo nekkoon président groupe parlementaire lu mu ko yëkkul day kàcc c'est un manipulateur nangam nangam nangam nangam mu mu dem yóbbu ko jox ko juge juge bari ci dara ay way jamono liñ yekk Ousmane Sonko juge boo juge eh sañ-sañu porter plainte fii parce que lii qui public état la citoyen mënu fee porter mu jël ay document moom yam am ak preuve yóbbu ko ne day def def dossier dossier ba fa muy jaar wax naa ko fi ay yooni yoon dossier ba fa muy jaar wax naa ko fi mu ngay mujj ca assemblée générale de l'OFNAC nag nga xam ne fukk ak ñaar ya ay nit yi Macky sàll yu ñu yu ñu moo leen fa nommé décret fukk ak ñaar ñoo ñee daje ak kilifa ak OFNAC ga di président OFNAC booba muy seeni bu njaajaxate ñoo ko gëstu gëstu gëstu seet ba ni Ousmane Sonko kat lii mu weex kenn mu ngi cee dindi dara la mu waxoon lépp la ñu wax lañ ko doon jiiñ njublang yaag njuñ jaaj escroquerie association de malfaiteurs détournement de deniers lépp la nag def dossier ba loole lépp a nga ca ñu fab teg ko ca table yi procureur loole la ko Mamour Diallo mere na de sinon yoonam nekku ci loole la ko mere teewul Macky Sall bàyyi ko bàyyi ko fi dem def ko président euh, directeur général de l'ONAS ONAS mooy ni mu defoon Cheikh Oumar André rek ba nak defé dossier qui mu def ci mom def recommandation nun waa OFNAC noo ngi ñaan Cheikh Oumar Anne mi fi mu nek nañ ko fi jël ci qu'il soit relevé immédiatement de ses fonctions té bu ko kenn dé dé dénkati ndom bob tank ci administration que personne qu'il ne lui soit plus confié aucune responsabilité dans l'administration ndax dossier je vais ki un bocc ko fa dem ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Légui moy ministre de l'éducation nationale. dama ni damay yem fofu parce que dina delu si ci leneen. dama ni affaire ndaw soosu. lii ma leen wax na ko nit de te na ko nit dégg xel. na ko nit dégg xel te bañ koo dégg xol. lu lu lu lu lu njiin njaaga te ab Macky Sall lay njaag même bu fekkente ni ba ñuy sos affaire ba yëgu. après da ca ànd dama ni affaire bii nu indi fii nu ne dara amu ci dama ne affaire bi nu indi fi mu ne dara amu ci lii ma leen wax na ko nit ñi dégg xel da bañ ko dégg xol li wax du dara lu ma fent am na lu mën ak lu mun tam lii fa mu tàmbalee ba fu mu mujjee mun la ne fa mu tàmbalee ba fu mu mujjee munul ne c'est des mensonges ay fen la ay sos la pour rek faagaagal ap adversaire nee na je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression sama ñii nekk janoog man ñu ne leen ku kujje gi danaa leen faagagal ba dootuñu tekki dara defoon na ko xalifa bëgg ko def Sonko mii nii rek la demee bu ma amoon sañ-sañ waxtaan ak chef religieux yi malheureusement lii ma wax duñu ko dégg affaire yi ndaw si ay feni neen la dara amu ci c'est de la manipulation ay feni neen la ay sos yi neen la ñaariyaat at ba loolu lu ko ndaw si taxaw mënut a indi benn firnde ne dañ koo violé benn mënut indi benn seede certificat médical bi wax li mu wax. ñu déglu audio euh, audio mbeeg euh, Mamour Diallo déglu audio mbeeg euh, nu mu sëriñam bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ñeenti yoon nit ñëw di la tëdde ak i law reer doo ko wax kenn du la naqari nga jekke ba ñeenteel wala juróom ba ah, ah, ah, nit ñëw jël sa akub 4-4. comment et li gën a yomb téléphoné yañ daan téléphonante moom aji moom du ma tudd ak xale boobu ko jël si woon ak avocat bu sant boobu Sow ak Mamour Diallo dañ doon échanger tey téléphone te loolu doyen di xam ko lu yomb waaye loolu lépp day setal Ousmane Sonko. duñu kon dañ cey gëm. dama ni fii nu toll. ñaara nu fi indi. danoo fal koo xam ne kii. sukkandiku ci. ay diggéem yu rafet rafet a rafet a waxoon wallaahi bu ko defoon tey mën nañoo bañ a xam Ousmane Sonko. Macky Sall la mu waxoon ne da koy def ci doxalin wu rafet ci xeex ger xeex nangam xeex nangam ñaar fukki ministre ak juróom nangam nangam président man président sénégalais bépp yëpp lay doon nag bu ko defoon kenn du xam Ousmane sonk bu ko defoon fii duñ fi ak tey. fit na jiinu nekk lépp Ousmane Sonko moom kennu ko teg Macky Sall màndal li ma naan Ousmane sonk a bon dos. weex na dunq li nu nekk lépp makki Sall nu ko tegal noo moo moonu moonu ko teg bu fekkonte ni bii la mu waxoon def na ko tey kenn du xam Ousmane sonk kenn du xam daw soosu waaw defu ko indi beneen doxin bu ñaaw a ñaaw wane ko ci makki sàll bëgg koo wane ci Ousmane Sonko moo tax ñu sos lii ñu sos sos dong la dara du ci dëgg loola ka nekk ca bopp gendarmerie xam na ko ka nekk ca boppu police xam na ko ña nekk ca boppi yoon xam nañ ko yoon sax gis ngeen li li fa li fa xew démb ak bërki démb danaa ci dellu si maa ngi jéglu di yem ak yéen fii ba beneen ma dellu si ci parce que am na leneen lu ma war a wax nag nit ku gëm nga gëm ku bañ a nga gëm waaye man jàpp naa ni ay kay kasaw kasaw la affaire ndaw soosu ay feni kese la ay feni kese maa ngi leen di jéglu